crédibilité bi mooy lan mooy téere bi mooy li crédit bi moom ndax waxu yàlla la di ay preuve yu leer mën a vérifier te yàlla topploo wuñu beneen wax bu téere bi gëmloo wuñu ñeen gëm laa yàlla gëmloo wu leen benn wax bu dul téere bi beneen wax boo xam ne yàlla da koy gëmloo nit ñi ci diine wala yàlla da koy topploo nit ñi ci diine bu dul alxuraan bii loolu preuve amut kenn ku ko mën a indi it jëlee ko ci téere bii amut lu amul preuve nag ak li am preuve ki koy tëkkale war ngaa xoolaat sa bopp li yàlla di wax ci aaya ba indi nañ ko ci vidéo bii weesu vidéo 26 ni afa man kaana ala bayinati min rabbihi wa yatluuhu shahidun minhu wa min qablihi kitaabu muusa imaaman wa rahmatan ba fafa maam ba fafa aaya ba yem loolu ku dem xooli ko li nga xam li ñuy wax bu baax ki wax loo xam ne li muy wax da koy indil preuve ak ki nga xam ne li muy wax mënu ko indil benn preuve ñaar yooyu ku koy tëkkale xamoo lu xew lii ñuy wax nag ku ko dëggal dëggaloo suñuy wax yàlla ngay dëggal ay waxam ku ko weddi ñun weddiwoo wax yàlla nga weddi ay waxam keneen ku mënti doon nag jarut sonn la ngeen di def amut preuve amul preuve li ngeen di def mu wuuteeg li yàlla wax amut preuve te wane nañ ci seen téere yi ci vidéo bi weesu wane nañ misaal yi ci seen téere yi loo xam ne day dëggal li yàlla wax te li mënti xew duñ leen ko wax leneen i wax lañ leen wax te yooyu yàlla wàcceewu ci benn kuréel te li waroon sax mooy ngeen dem gëstu la ngeen di jëf fan la bàyyikoo ko diine ji fa mu jaar ba yegg si fii di ngeen xam ne li ci rax li ci dugg dafa bari lool. wahabis yi naturellement dañuy bañ yonentu parce que dañ koo donn ci seeni maam mataar yi mooy mooy banu umayate yi affaire bi nag parfois c'est d'une façon tellement subtile ba nga xamante ne doo ko xam maanaam xam nga stratégie bi banu umayate def ñoom bokk na ci yonentu bi bi mu ñëwee dafa daaneel seeni xërëm ñu ne ko sagam suñuy xërëm nga daaneel danañ fayu ci sa yàlla gi ñu dem fabriquer ay xadis yoo xamante ne suñ la koy nettali dangay mel ni yàlla ji benn doomi aadama la comme yow moom la ñuy wax tajsiim ak bi mooy mellal yàlla jëmmal ko ba yàlla mel ni ab doomi aadama bokk na ci xadis yooyu di wax naa ni yàlla tànkam yi nii la mel bët yi nii la nangam nangam ñaari loxo ñaari yu mel noonu ngay gis naa ñuy bind ci ñoom naa ni yàlla dafa am ñaari bët bi fi yonent bi ñëwee dafa daaneel seen nguur gi nguur gi ñu amoon ci màkk ñu ne ko suñu xërëm yi nga daaneel danañ ko fayeeku ci sa yàlla gi mooy tëj siim ak tëj bii bi wax naa ko suñu nguur gi nga daaneel nag danañ ko fayu ci say doom mboolem doom yi fi yonent bi bàyyi ak ay sëtam ak sët sëtaatam dellu leen ci taarix imma kuñ ci rey wala kuñ ci empoisonné maanaam imma kuñ ci rey ak jaase wala kuñ ci empoisonné histoire de Karbala vous dit plus massacre Sayyidatuna Fatima Sayyidatuna Fatima mi ñuy wax ba léegi amul ku la mën a wax bàmmeelam avec exactitude parce que bi muy génn àdduna dafa dénkaane ne nañ nëbbu bàmmeelam loolu xëy na yeneen beneen pàcc la sax waaye li ñu def ñoom seyd Seydina Hassan Seydina Hussein Seydina Hassan dañ ko empoisonné Seydina Hussein dañ koo tër rendi ko yeneen ñi ñoom euh, Mouhamad Nafsu Zakiya ñoom Zeyd ibnu Ali jàngal benn téere bu tudd euh, maqaatilu taalibiyin bu abul faraj al asfahani nga xool boo ko jàngee te jooyoo ma xam ne xolu xolu acier nga yor liñ def famille wu yonent bi ginnaaw yonentu léegi nag ñi def loolu après ñoom ñoo yoroon nguur gi kuy sa wujju di sëlam doo set loolu la fii di wax commencé fabriquer xadis yi di tuutal di ekkati di tuutal di ekkati di fab di maquiller di tilimal ba tey ji am na am na benn xadis bu nekk ci saxiixul Buxaari saxiixul Buxaari je dis bien Anas ibnu Malik Anas ibnu Malik mooy wax ne bon ça vaut ce mooy wax ne. amul lenn lu ma xàmmee li nekkoon ci jamono yonentu orthodoxalement lu dul julli maanaam lu dul julli ji lépp changé nañ ko te julli gi tamit yaa changé nañ ci li liñ ci mën a changé est-ce que xam ngeen ne am na jamono joo xamante ne kenn daanu julli di kàbbar ay allahu akbar ay sami allahu liman hamida maanaam julli gi këpp këppal la woon amul benn wax bismillahi rahmaani rahim bi ci boobu fatiha ñi dindi sax ci kii boobu après créel nañ ko ay hadis bismillahi rahmaani ci boobu fatiha bi ci topp bi ci topp aj màkk xadis bank ngi ci sunanu nasaa yi xaaral xaaral ma ma jox leen bii moom mën ngeen koo ubbi léegi ci sunanu nasaa yi ngeen xool ko bu anas ibnu malik bi bàyyil ma bàyyi ko ñu gëstu wërsëgu jàngkat la ku jàng bu xaari dina ko gis